madame Walf cuisine sama gars yi ci lu ngeen ne waaw dikkati naa tey nag yeneen bagage laa andi waa ci lu ngeen ne euh, namoon naa leen tey dama ñëw ak euh, waa jardin des senteurs voilà jardin des senteurs andi ay bagage yu jigéen wala xam nga ñun ñun jigéen ñi dañuy bëgg ambiance bu bu buy xeeñ neex ay ay kër yu sentir bon appartement yo yoo xamante ne euh, bala ngay dugg ci escalier yi rek maanaam bu fekkee nekk nga jéeg dëgg xet gi bu gillee yegsi naa moo tax nag ma andi tey ay ay ay produits yoo xamante ne jardin des senteurs moo leen ko andil. voilà am naa fi after cooking maa ngi ciy ñëw léegi xam nga bu ñu nee after cooking nag ngeen war a xam lu tax Alphie Cuisine ñëw after cooking mooy après togg waaw kay bu Alphie Cuisine rëgalee ba pare after cooking bi mooy dugg maa la wax loolu. am naa fi glams pour euh, ñi glam. voilà am naa fi euh, tuuti fruits voilà bi moom c'est pour vous évader dem ci euh, monde de la gourmandise voilà dinaa ci ñëw nag benn par benn wax leen. Euh, bu ci nekk lan la composé xam nga boo nee euh, after cooking voilà after cooking euh, ñun léeg surtout ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ñoo nekk extérieur voilà nga xam ne ay appartement yu ndaw la am day day day tëju daal waaw boo ci rosé netitu tarkal la wala nga def sa sa suppu kanja wala nga defar sa ceebu jën xet bi dafay des <laughs> moo tax da ngay bëgg di dem lekk resto au lieu di togg sa kër di di lekk coono jeex na nag solution baa ngi nii after cooking bi euh, boo toggee sa suppu kanja ba pare hmm, daa di ubbi mu aéré ubbi fenêtre yi mu aéré nga daa di teg sa benn casserole def ci ndox def ci sa ay zeste agrume def ci sa euh, clou de girofle voilà def ci sa ceeb euh, bàyyi mu bax ak moom nga daa di wis sa after cooking xet bi dootoo ko sentirati cooking bi moom yéen ñi nekk extérieur ba ñi nekk Sénégal sax bëgg naa ngeen essayer ko moom ca waañ ba dégg nga maam ruqu waañ yi ah fi nga xamante ne xam nga léeg <laughs> léeg-léeg nga nekk extérieur sama gars yi rosi sa maafe rek wala nga rosi sa sa sa sa yaasa ah daal di sol sa veste wala nga ko sa écharpe <laughs> boo duggee ci métro yi da ngay mel ni ku toog ak boolu boolu yaasa bi yow yow da ngay mel ni marmite bi la nga ko yóbbaale <laughs> léeg nit romb la rek nga ni wuu sa africain romb na ma wala sénégalais <laughs> lii la ñuy daj waaye solution baa ngi nii after cooking bi jardin de santeur andi ko bu ngeen ko amee seen coono jeex maanaam di ngeen mën di suppu kànja di ngeen mën di ceebu jën di ngeen mën di daxin voilà nu leen neexee di rosi seen nete tout <laughs> soo paree piche piche sa sa after cooking voilà ci kër gi voilà xet bi daal di dem sama gaay <laughs> bi mooy glams bi moom pour ñu glamour voilà les dames glams glamour ñi nga xamante ni dégg nga maam dañuy yeewu maam dañuy yeewu yàlla boo am jëkkëru asthmatique waaw coussin yi hein coussin yeeg dra yi voilà ba pare dafa am dafa am euh, emballage bi gis nga packaging bi dafa am Euh, loo xamante ne mooy arrêté ak mooy andi voilà gis nga bii daal gis nga ci coussin yi voilà fauteuil yi waaw moom nii rek nga koy def glam euh, da ngay sax mujj glamour yow <laughs> glams bi xaaral ma wan la lu wax la lu nekk ci glams bi waaw parce que dafa dafa dama pare glams bi euh, moom pour ay soirée romantique voilà ñu ngi ci période Saint-Valentin ay dîner en amoureux pour ci rideau yi ci drap yi dafa am benn benn njambaxtaan bu nekk ci glams bi oho oh da ngay daal fi mu ne nii maa ngi am envie sax fête Saint-Valentin bi tey te suba ñëwagul <laughs> bii glam si bi moom euh, bu ngeen ko pompé ci rideau yeeg ci drap yeeg euh, ci napp yi voilà comme li ma ko waxee rek glam si bi moom dîner romantique yi voilà euh, pour ñi nga xamante ne Saint-Valentin mi ngi ñëw voilà. ki nga xamante ne mooy jardin des senteurs am na ay pack packaging yoo xamante ne pour Saint-Valentin bi moo ko tax a jóg donc. Euh, Brume Euh, d'ambiance aux notes florales et exotiques avec un parfum doux, euh, bombé, acidulé et réconfortant. <laughs> nga ni yii léeg-léeg da ngay jaxase sax ba dootoo déggati français maa la wax lii donc Glamz Bango beneen bi ma am fii mooy touti frite voilà moom laa doon wax léegi moom euh, monde de la gourmandise la leen di yóbbu boo ko piisee da ngay am envie lekk voilà da ngay am envie consommer lu sucré voilà wala lu salé donc moom. mélange la boo xamante ni am na grenade am na goyave voilà am na papaye orange euh, comme ni ma ko waxee rek wuy na turam note florale et fruitée moom comme dafa fruité voilà euh, fi ñu koy piche piche <laughs> moom c'est à consommer sans modération voilà espace familial yi euh, wala salon bi voilà wala chambre à coucher yi foo ko pompe rek da ngay gis ni da ngay am euh, xet bu agréable xet boo xamante ne da ngay am envie lekk voilà lekk ay gerte caaf voilà da ngeen envie lekk ay ay ngato ngatos ngato maanaam ñamatoos yooyu nga xamante ne da ngeen koy romb ci Alphie Cuisine voilà tuuti fruit yi ak nu mu ci mënti demee jàpp leen ni euh, jardin des senteurs mën ngeen ko woo ci 78 173 57 71 78 173 57 71 am na WhatsApp bu ngeen duggee ci WhatsApp bi mën def seen ay commande dafay livrer euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk Europe wala ñoo nekk Amérique. bu fekkente ni da ngeen bëgg ci euh, centre yi da ngeen di woote ci numéro téléphone wala ngeen dugg ci whatsapp bi bu ko da di woote ci numéro yi bu ko defee ñu livrer leen fépp fu ngeen mënti nekk man dama toog fi ma toog euh, daal di jox sama GP moo ma andil euh, centre yi nga xamante ni bëggoon naa ko partager ak yéen am ngeen ay packaging yoo xamante ni pour Saint-Valentin bi la ñu defal leen ay pack yoo xamante ni dafay am composition bi ci kaw ngeen jël numéro de téléphone bi woote pour mën a am renseignement yi des fois damay jot ci commentaire yi ay information yoo xamante ni man duma ma mën a répondre donc ci numéro de téléphone bi ngeen di woote bu ko defee ngeen am information yi ngeen soxla yépp ak nu mu ci mënti demee nag jàpp leen ni euh, xet bu neex dafay yokk longévité <laughs> maanaam xet bu xet bu neex dafay yokk gudd fan waaw kay euh, te ñun sénégalais yi dañuy bëgg tout le temps kër gi di xeeñ neex kër gi di sentir bon donc euh, solution baa ngi nii Euh, jardin des senteurs voilà parce que léegi dañu nekk ci jamono boo xamante ni euh, gaa yee ngi ci Facebook yi gaa yee ngi ci WhatsApp yi ci Snap yi voilà ak li nga xamante ni mooy euh, ban laa waxul Instagram voilà Aïcha je vous souhaite une très bonne journée et puis na sentir na xeeti neex rek na kër yi na kër yi xeeñ neex sama gars yi na kër yi xeeñ neex ak jardin jardin des centeurs voilà l'essence du bien-être chez soi <laughs> sama gars yi bàyyi ma fendal ko fin bi waay ma ni ak jardin des senteurs l'essence du bien-être chez soi <laughs> aywa c'était Alphie Cuisine sama gars yi namoon naa leen kenn du yéen